abonné leen ci saa su ne ay xibaar yu wér te wóor réew mi ak ci bitim réew. Excellence le président de la République ñëwati nga fii tey ci sa kër ci kër sëriñ bi ci famille Maulana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass nga xam ne tey ki nekk ci bopp bi mooy sa xarit sa soppe Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimal umma ñëw nga fi tey ngir jaar moom itam mbooleem ay mbokkam di ay rakkam di ay doomi baayam yu góor ak yu jigéen di ay taalibeem di fameem ñëpp teew nañ tey fekkali si ko ndax moom sëriñ bi dafa bëgg waa na waa na bëgg ko moo tax fu ngi dem waa Medina yëpp dañuy bëgg ànd ak moom buy am gantam waa Medina yëpp dañuy génn teew na fi cheikh Mouhamadul Mahdi cheikh Ibrahim Niass teew na fi cheikh Mouhamadul Shafiu cheikh Ibrahim Niass teew na fi cheikh Mouhamadul Abdul Malik cheikh Ibrahim Niass teew na fi Seydi Arabi ibnu Alxaaji Mouhamad Zeynab teew na fi ay rakkam yu jigéen ñu ràññee ci Seyda Ndeye Aida Niass Seyda Umu Salamata Niass Seyda Seyda Bajante Ñas Zeynabu Ñas Zeynabu Ñas Seyda Habiba Ñas ak mboolem sëtami teew na fi tam Cheikh Mouhamad Siraji Diin Ñas teew na fi njaboot gi nga xam ne tey ñoom ñoo ñàkk seen wayjur sëriñ bi ñàkk rakam ju baax rakam ju fonk rakam ju amoon ci moom yaakaar rakam joo xam ne moom kër bi muy jugee fii Mauritanie santiroon na ci xolom ne dara dana xew mbedd moo tax àggali wut séjour am foofu dañoo àgg rek mën nañ takkaat bagage yi ñibbi mais biñ ñëwee fii lañ door a xam lim ñu doon junj rakam jooju la ñàkk tey yaakaar naa ne jokkoo na ci ak yow foofu ca Mauritanie taxawaay ba nga ca waroon jël itam Medina yëpp xam nañ ko famille bi yëpp xam nañ ko kooku nag famille tey mi ngi nii toog ki ci seen mag Cheikh Mouhamadul Moustapha la France la nekk di liggéey bi mu yëgee dëj bi ci la ñëw ki topp ci moom mooy Cheikh Ibrahim Niass al imam ak Cheikh Abdoulaye Aqibu Niass kooku yaakaar naa turam dana am lum la fàttali ak Seydi Ali Niass ak doomi roxom yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom muy Cheikh Thiaw Cheikh musa Soxna ak Sidi teew na fi également famille sëriñ bi xam ne ñoo ñoo mbubboo politique fii ci dëkk bi ñu gën ci ràññee suñu rak Cheikh Abdoulaye Mountakha Niass ràññee ci euh, directeur général de la Sénélec son excellence Pape bi tey ràññee ci Cheikh Ibrahim Diallo ràññee ci l'ambassadeur Aliou sa dem ñoom ñëpp daal dëkk bi yëpp ñëw nañ teew ànd ak uh, yow ànd ànd ak yow pour fekk li la sa gan gi ci famille politique boobu tam également gis nañ fi Serigne Mbaye Thiam doom la ci kër gi mën na la teeru mën na ànd ak yow gis nañ fi également le ministre Pape Malick Ndour doom la ci kër gi mën na la teeru mën na ñëw ànd ak yow gis nañ fi son excellence monsieur le ministre Mouhamed Ndiaye Rahma mi nga xam ne lépp lu kër gi taxawee kenn du ko ci mën mu ngi nii toog ànd ak ñun. donc li ñu lay wax rek tey monsieur le président de la république sëriñ bi kontaan naa ne une bonne fois ci sa mu ñu ngi tatagal président Macky Sall mi nga xam ne vraiment ñëpp xam nañ ko. léegi Cheikh Mahi wax na léegi taxawaayam ak mbëggeelam ci pays bi. waaye ñun suñu génération dafa am loo xam ne dañ ko fekkee mooy jamono bi nga xam ne mu ngi nekk euh, élève fii ci lycée Valdiodio Ndiaye jamono boobu masta jóg ci di ñëw Medina Baye fi de julee ajuma ñoo daan bokk di naan attaaya di waxtaan keroog sax maa ngi tooñ benn xaritam ne ko ñun dañoo gisoon président rek ñu ngi naan attaaya yooyu waaye suñ xamoon ne mooy nekk président nga ne la ci comporté waaye comme yàlla du du la wan li muy def ëllëg waaye ñu ngi sant yàlla ci loolu te ñëw bi fi ñëw vraiment dëgg la parce que loo xam ne ba mu nekkee ba léegi mu fi ñëw te heure bu fi ñëwee rek dafay indi mbëggeelam ak di participer ci li nga xam dafa war ci pays bi kooku dëgg-dëgg ñun ñëpp dañ ko war a ñaanal te xam nañ tamit nan la mel ci sëriñ bi waaye xam nañ aussi sëriñ bi nan la mel ci moom ndax euh, toujours maag sëriñ bi ñooy nekk waaye su kenn di romb sax su tuddee président Macky rek da ngay gis mu bàyyi li mu doon def yëpp di ko di seet lan lay wax. te loolu mooy mbëggeel te yónni na ma ma dem Macky ànd président waaye man tam bi ma fekkee ci président heure bu nekk rek mu ngi koy tudd di wax cofeel ak yoon yi nga xam ne mu ngi koy def. ak mbëggeel yi nga xam ne dëgg-dëgg am na ko ci moom kon su yàlla defee mu ñëw fii ci liggéey bu yaatu boo xam ne xam nañ xat-xat yi nga xam ne moom la yenu parce que ku ne xam na ne liggéey yi mu nekk nit ku xat la waaye terewut bàyyi na li mu doon def yëpp ñëw ànd ak ñun ci naqar bi nga xam ne yàlla teg nañu ko nga xam ne mooy Cheikh Mouhamad Akhibou bi nga xam ne sëriñ bi biñ nekkee Mauritanie fan yi yëpp ñu nga foon biñ ko waxee ne ko Cheikh Mamadou Akhibou la tawat ba yóbbu nañ ko biñ ne président yëg na ko rek daf ne alhamdulilah comme président yëg na ko rek li war yëpp dina ko def te ni mu ko waxee noonu la ko defee te yàlla dafa def nag ñoom ñaar seen addina yëpp ñoo ko ànd ndax depuis 1960 ci la leen bàyyi jox ay bourses ñu dem Maroc moom ak Mouhamadou Akhibou ak Mouhamadou Lemine Mouhamadou Hadi am Nazir génération boobu yëpp ñu dem Maroc bi ñu demee jàngi yàlla def am xew-xew yu xewoon ba ñu jugee fa waaye daal di transféré leen ñu dem ci lañ leen tëj ñebe moo ko wax <laughs> bi ñu demee dañoo dem étudiants yi yi di révolté di laaj seen bourse après ñoom bokkuñu woon sax parce que dans jamono boobu amuñu bourse waaye bi gars yi di dem rek ñu ne comme sénégalais yi ñooy laaj seen bourse nañ leen dimbale biñ demee rek ñu jàpp am na ci ñoo xam ne ñoom maa wax <laughs> waaye biñ leen tëjee indi leen cent mètres fii ñu toog ay fan Cheikh Ibrahim daal di yëg ne ñu nga fa waaye mu négligé rek am ku ñëw ne ko ah sëriñ bi sa doom yi ñu ngi leen mu ne sama doom yëpp ñu ne ko ñoom sa sa maax yeeg frère yëpp. après mu négligé rek bi Seyda Mariam moo fa dem di yóbbu añ bi mu demee ci situation yi nekk mu ñëw ci sëriñ bi jooy waaye ci la téléphone au lieu mu oo président dafa oote Maroc laaj ambassadeur bi parce que ni mu nekkee woon diplomate laaj ambassadeur bi qu'est-ce qui se passe ci la ko expliqué bind ay lettre moom tam comme moom tam il était un peu politique ci lettre bi daf ci rax ay yu garaaw wane ne daanaka ñi ay criminel lañ <laughs> un jour man comme dama am habitude doon def recherche bi ma demee ba am lettre bi ma ngi ko sëriñ bi c'est quoi seen baa ngi nii ma liir ko ni waxu dëgg <laughs> waaye lii depuis trente ans la <laughs> wala lu ko waaye loolu yëpp da ngay da ngay gis ne yi ñu jaaroon ñoom ñëpp ñoo ko àndoon léeg-léeg sëriñ bi di nettali vraiment jaaruwaay yooyu nga xam ne jaaroon nañ ko ñoo ànd ba keroog bi muy dellu ci boromam xamante nañ moo tax keroog Cheikh Mahi ngi koy wax ni sëriñ bi ñun ñëpp ñu ngi seede di wax waaye lim ci xam dëgg-dëgg kenn xamu ko ci te dëgg-dëgg lim ci xam kenn xamu ko ci waaye biñ demee Mauritanie comme ni ma ko waxee bi mu yégee ne président dugal na ci loxoom rek loolu dafa wàññi soo xoolee kanam da nga gis ne loolu def na ci moom lu bëri ñun nag bi ñuy dem Mauritanie dañoo dem ba àgg rek sëriñ bi ne dañuy ñibbi àllarba mercredi dañuy dem Kaolack naar yi ñëpp wax mercredi mu ne Kaolack rek naar yi ne ko toogal pour ñu julli ajuma mu ne déedéet nañ damay dem rek waaye bi ñu demee ba mercredi jot ci dañuy tàggee sëriñ bi far waxuma sëriñ bi ak délégation bi mais muqaddami Mauritanie yëpp dañoo ànd ñëw bi ñëwee baag si bi muy def ci la wax ne maa ngi doon wax ne alarba ñu dem naan ma kaay nga jullee fii àjjuma kaay nga def xadra juma waaye tey ñi ma ko doon wax ñëpp ñëw nañ tey defee xadra juma fii donc nit yàlla yi ñuy yëg ak yi ñuy ñoom yàlla moo leen ko jagleel rek moo xam moo tax ñu ngi gàttal ak respect ak cofeel gi nga xam ne dëgg-dëgg hmm? waaw gannaaw loolu tamit mu doon wax euh, di la gërëm ci université bi nga xam ne taxawoon nañ ko ak coono yi ñu ci daj ak njàmbaar yi nga xam ne am nga ko ci devant tous les sénégalais bu tuddee ko Mawlana Cheikh Ibrahim mhm. te ba léegi loolu mu ngi dox taalibe yi nekk bitim réew yëpp mu ngi kontaan ci loolu suñu yëgee ni université bi président Macky Sall tuddee na ko Cheikh Ibrahim ñoom ñëpp dañuy wax la sëriñ bi waxoon ci bés boobu ne université moom lañ tuddee université loolu nag yow la ko yàlla jagleel nga def ko te yàlla moo xam ku nekk lim day cëral dañ la ko war a nangu ndax eh, am na liggéey yoo xam ne du effacé mukk ndax sëriñ bi def ñu nettali mu ne dafa am benn boroom xam-xam arab buy nettali mu ne montagne daf fee nekkoon di montagne am ay xale yu ndaw di dem ci montagne bi di salaxante suuf di xeex di saagaante di def lu ne ñu dem ba ci digg xale yu màgget mënatuñoo dem eeg ci montagne bi ñu ñëw di taxaw di ko xool rek mujj gi ñu dem mënatuñoo dem ñuy téye yet mujj gi ñu dem dañuy toog rek di waxtaan naa ati nangam montagne ba ñoom ba mu yàgg xale yi tey ñu suul leen waaye montagne ba des fa rek di résister dafa am liggéey yoo xam ne ak ay nit yoo xam ne li leen yàlla jagleel su ñuy wax résistance foofu lañ ko war parce que da ngay dem ba nekk fi ba jugee fi mais toujours seen liggéey day gën a fës ci nit ñi histoire di ko nettali ñu ko fekkee di ko nettali xol yi ak xel yëpp di ko fàttaliku loolu mooy liggéey yi nga xam ne remarqué nañ ko moo tax ñu lay gërëm di la sant. bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. sëriñ bi maa ngi ñëw tey. ñëw fii tànku njaal di la jaale jàmbaaru lislaam sa rakk sëñ Mouhamadou Xibu Cheikh Ibrahima Niass na ko yàlla xare aljanna ci aljanna mi gën a kawe ci wetu way al Islam ñu ngi lay ci turu réew mi yëpp di ko jaale njaboot gi di la feddali sunu cofeel boo xam ne lu fent lu xóot la suñu biir xol di la téye comme suñu way wayjur te muy lu am di la bëggee itam ndax sa dund yëpp njëriñ la ci askan bi njëriñ la ci diine ji di seede adduna bi yëpp taxawaayu suñu xalif Cheikh Mamadou Mahi Ibrahima Niass taxawaayam en tant njiit taxawaayam en tant que éducateur yu tàggat nit ñi ci li suñu borom santaane di leen won itam li war a nekk seen taxawaay ñu ngi nuyu ak di teg njaal moomu ci sa loxo jëmale ko ci njaboot ki fii suñu weju Cheikh Mouhamadul ak kibun Cheikh Ibrahima Niass Baye ci jiital sëriñ Moustapha Niass di taawam ak kay rakkam di nuyu Ablaye Axibu dëgg la moom ci ñi ñu fi njëkk tatagal fii ci wàllu politique ci biir Madina di ko nuyu moom ak ay rakkam di nuyu say rakk bopp yi nga xam ne ñu ngi fii sëñ Madi yëkkati fi kàddu koy nuyu di ko ziar ren ñoo bokk ak nga yónnee ko mu ànd ak man dëgg mu am fa taxawaay bu bu bu rafet ñu àndoon ak ay këru yeneen i këru diine dama ñu am fa aj bu am am solo di nuyu Cheikh May Cissé porte parole di jox nuyoo ak sama ziara jëm ci Cheikh Tidiane al imam di nuyu Serigne Chafi ak sëñ Abdou Malick Niass di nuyu njabootu Maulana Cheikh al Ibrahim bi fi teew yëpp ak sët ak njaboot bu jigéen bi di nuyu itam ci biir kër gi dama fi bari ay soppi moo tax léeg bu may cité dafay indi jafe-jafe mm-hmm. waaye nag am na ñu ma moom bañ a tudd ndax sa njaboot lañu te seen taxawaay sama wet dafa nekk lu am solo Cheikh Mountakha yaa koy wax moom it euh, taxa si loo bokk si njaboot gi taxaw di jàpp depuis bu yàgg-yàgg suñu Aliou Cissé Niang ambassadeur Alioune Cissé Dème maa ngi lay seedal ne ku may jege la ku may jàppale la ci biir ak ci biti bee bi sëriñ bi tawate moom moo ma jox xibaar bi ma woo ministre de la santé ne ko il ñu évacuer ko immédiatement mu wax ma ne comme la fi mu toll président ñun ñëpp taxaw nañ ci hôpital bi mais mënaguñu ko déplacer fi ñu toll waaye lépp dès que c'est possible incha allah dinañ ko def ci laa woo sëriñ bi mu nekk Nouakchott ma ne ko kat suñu yéene moo doon yóbbu ko waaye docteur yi xamal ma xamal nañ ma ne du mën a antu léegi xëy na nag bu tane wala bu nekkee ci condition yi def lépp taxaw na pour ñu mottali ak du xëcc suñu borom kon def na liggéeyam kon nag yàlla xare aljanna te teg loxo si njaboot gi mu bàyyi ci nuyu itam sëñ Abib Ndaw ndax moom it bokk si kolere yi ak Cheikh Ibrahima Diallo ndax tey moom bu ma ko tëbee ma loo xam kenn alors di di nuyu responsable Kaolack yëpp nag tudd ngeen leen mhm. ma dellu si waaye ñoom ñëpp xam naa seen taxawaay xam naa itam euh, seen cofeel ci Medina Baye moo tax maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaax ñu yokk nekk benn ndax fi ñu jëm loolu la laaj nekk benn ànd ngir ndam li ñuy wut te di ko wutal Sénégal ngir jàmm Sénégal ak dalu Sénégal gën a yaatu loolu ñoom ñu joué ci seen rôle léegi bi may ñëw sëñ bi dama wàcc aéroport dal di dem ci université Cheikh al Islam tuddee ko USAN muy université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass damay wut boroom xam-xam buñ ko war a tuddee ci biir Sine Saloum seetuma lu yàgg pour xam ne Cheikh al Islam moo war a moom tur bi et c'était la première fois ñu jël kilifa diine bu université boo xam ne li ci ëpp njàngum français lañ koy ah. lañ fay lañ fay def loolu nag cheikh al islam di wax taarixam xejul fii waaye li mu liggéeyal lislaam li mu liggéeyal nit ku ñuul ba ci président Abdou Diouf defal na ma seede su bi ñu def code de la famille bu Sénégal moom cheikh al islam ci xam-xamam moo tax lépp lu doon tolof-tolof mu gindi ko teg gouvernement bi ci yoon bi mu war a jaar pour code boobu mën a tax loolu président bi du moomu ko wax mën naa ko seetlu tey ndax mu ngi fii di ma dégg kon Cheikh al Islam li mu def romb na Kaolack romb na Saloum romb na Sénégal tey jii bu ñuy wax xadara bi la mu am ci ay taalibe nga dem Nigéria ci Kano ci fépp ah yaakaar naa ne loolu yàlla moo mooy kii maye moo ko may te loolu seede ko du yàq daal parce que dëgg la mhm. nit nag boo gisee ngay wax lu wax dëgg ji hmm. te lislaam bi ngeen di jàng fii xam-xam bi ngeen di jàngale fii te saa ñu fi ñëwee mu feeñ ci xale yi lu jara continuer la lu rafet la parce que l'islam tam na fekk ñi lay wax fekk seen xel yi l'islam mu ngi ci biir te tàggal nañ leen ci waaw ah, bu fekkee yow ne nga sëriñ nga yow tane woo ma man mii nga xam ne dama àlloo kon loolu dafay xaw a doy te comme àdduna bi dafa bëri ñu yàq mbuboo woo l'islam dafay baax ñi jàng nekk fi di génne nit ñi leen wax li yàlla wax di mu tere su keneen ñëwee bëgg a indi yeneen i melokaan wala yeneen i kàddu mu am ñu jógee fii teg ko ci li nga xam ne mooy xam-xam teg ko ci li téere bi loolu wax dëgg yàlla am nañ ko seede fii ci Medina ko seede si gox yu bari ci Sénégal ndax Sénégal ëpp na junni at bi fi lislaam duggee boobu ba léegi ñu ngi koy suuxat moo tax ñun suñu wareef en tant que état moo doon jàppale diine ji dafa am ñuy am confusion maanaam di jaawatle bu ñuy wax laïcité laïcité état bu Sénégal waxul état warul jàppale diine lool hmm. état na du dugg ci kër yi kan la ñuy def xalifa ak loolu du yoonu état waaye jàppale nag diine ji moo xam diine l'islam diine catholique dañu war jàppale parce que ay way ngëm ñoo ci jaamu seeni borom kon luñ leen mën jàppale bi fa ñuy jaamoo seen borom muy jumaa yi muy église muy dëkk yi nga xam ne fa la ñuy teeru gan yi loolu wareef la ci état Europe église yu mag yëpp ya fa nekkoon état ñoo ko tabax ak empereur kon dafay jaadu looloo waral man ma def programme bi yaakaar naa ne ñi fi nekk tey sama ginnaaw muy premier ministre Amadou Ba ak gouvernement bi dinañu continuer loolu ñu tàmbalee rawatina fii ci Medina sëriñ bi wax na ma programme yi Medina Baye fi mu toll ci senegal ci l'islam war nañu jàppale programme boobu muy modernisation grande mosquée bi ak esplanade bi ñoom déjà defaral nañ seen bopp esplanade bu mag pour dafa defee événement yi waaye ci ginnaaw loolu dëkk bi dafa laaj assainissement dafa laaj eh, hygiène dafa laaj ay voirie dafa laaj lu bare bare loo xam ni euh, moo war a taaral yokk taaral boog Madina ak dëkku diine yi nekk fii ci gox bi ak yi nekk ci réew mi loolu tax nag ñu leen leen di gën a dënkaat sëñ bi dënkaat leen moom premier ministre ak gouvernement bi ngir ñu taxaw jàppale yéene bi ñu mottaliku ah. loolu buñ si taxawee rek yeneen dina mot li ci des nag ñoom it su ko defee ñu mën a def góorgóorlu di ñu war a def pour continuer li nga xam ne moom la ñu def. université bi jóge naa fa tey jox naa leen ñetti weer pour ñëw inauguré ko. incha allah de mars au plus tard danaa ko inauguré pare su boobaa maa ngi ñaan nga ñëw defal ñu ñaan ouverture bi. bu mhm. defee ñu ubbi amphithéâtre yi étudiants yi jógee bi Kaolack nag dem ci université bi yoon bi mën a pare ak yoon yi ci biir ak lépp li nga xam ne mooy taaral université boobu mooy université El Hadj Ibrahima Niass Cheikh al Islam seen bi kàddu gi loolu la woon dañ ñëwoon indi njaal eh, di la sant nag di la gërëm di la béggee toujours eh, voilà cofeel gi moom boo ko nattee rek romb na kon maa ngi sant bu baax di gërëm اللهم صل على dama tawar président Mauritanie ma ne ko sa sagesse ci mbedd mi laa ko gisee gis naa réew mu dal gis naa policier ñu ngi taxaw te yëguñ ne ay policier nga ànd ak ñoom te jàmm jooju dëgg-dëgg ku góorgóorlu ba si réew am ko war nañ laa wax jërëjëf. waaye itam man lay wax ne président yaa ngi nii waaw di nga ah di nga gis sa sagesse ak xam ne dañoo war a tabax euh, dëkki dëkki diine yi dëgg-dëgg mën naa am lu nekk mën naa am waaye nag ni mu nii ni mu amee nii dëgg-dëgg loolu sagesse président moo ñu ko may te ñu koy yaakaar ci Sénégal yëpp itam. nga newee fa noonu ñu ngi yaakaar nga nekk waxtaan buy dolli mm-hmm. waxtaan buy dolli waxtaan bu déglu ko pour xam kii li mu pour Sénégal lan la te ñun may may na la ko incha allah di dinañ ko gis euh, sa joxoñ mooy sa joxoñ rek incha allah ñun ñëpp dinañ góorgóorlu ci joxoñ boobu ak kenn kàttan buñ ci ñu ngi gërëm sa premier ministre ñu ngi gis sama ma tey ñu ngi lay ñaan yàlla bu baax. mën ñu ngi lay gërëm bu baax. yàlla taxaw Sénégal. amiin liggéey gi tas Sénégal yëpp. bu paree ci sa loxo alhamdulilah. bu paree ci ay loxo yu wóolu itam alhamdulilah. yàlla mën naa def loolu yëpp yàlla mën naa def loolu. amiin yow kontaan nañu bu baax a baax.